asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëriñ Abo ñu ngi lay sant euh, bala ñoo def dara ñu nuyu sëriñ Bas ak bokkam yu tedd yi moo toogal di ko yóbbanti ab nuyoo ci sunu maam sëriñ bas ak mboolem njabootu borom Daaru Muxti gépp di sant baxé aussi conférencier yi ci waxtaan am salam ci def di jiital rek sey abou ci nga wax léegi man ben casquette la am euh, du du casque du casquette homme politique casquette bu sëñ touba casquette bu am moy talib Sëriñ touba bu maam Cerno ma da dem te loolu moo ba lepp lu bax luy defar dama ci def sama loxo

guerre am mu dundal mbollem armée française kon lolu moy tradition bi nga xam ñun mom lañu ñu muy sujet aussi di di di di waxtaan bu am solo ndax politique day féewale askan wi askan wi day dina a ci politique mais lolu lan moo koy sabab man ci sama gis-gis suma ko don misal dama naan politique ci biir réew mi ci Sénégal ab seetu la seetu boo xam ne dañuy wan li nga xam ne moo nekk ci suñu société kon du du politique mooy féewale waaye politique dana nekk moyen boo xam ne danañ ko jëfandikoo. ngir fésal ak féewaloo goo xam ne am na ci diggante ñenn ñi wër na ne waxtu politique jibee am na ñoo xam ne dañ naan diw fu mu far ñu ne ko barab sàngam mu ne ko de maa ngi far barab sàngam xam nga kon loolu politique indi ko te may wax ni réalité la politique di fësal ak tële goo xam ne lenn ci suñu homme politique yi am nañu ko ndax mooy tax ba nit di politique ñi taxaw di instrumentaliser diine ngir ñam bokkal fa mu far ci diine du ko wateel te fekk boobu mi ngi tas réew mi politique di fësal sunu réew ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ak ñàkk goo xamante ne bii citoyenneté ñàkk na ko sax ci biir réew mi ba su politique dikkee ñu boole ci loo xam ne bokku ci wala lu ci ëpp juum tarxiis ba def lool mën a tas réew mi kon man damay jàpp ne politique bi conséquence lay nekk waaye nekkul cause bi ndax li muy fësal fi la ko fekkoon te mu ngi fi li ci firnde ji su politique bi jeexee loolee day continuer di law di wéy kon bu ñu bëggee saafara mbir mi ca cause ba ca la ñu war a agir euh, may wax ne aussi du wàllu diine rek itam nañ ko gën a yaatal maa ngi wax léegi si Ibrahima ma ne ko du du du xañ na ci biir diggante tarix ak tarix rek waaye bu ñu xoolee ci élection itam wàllu waaso feeñ na ci wàllu région feeñ na ci kon problème bi problème bu gën a yaatu la.

bu naree dem ba déborder kilifa yooyu nga xam ne ñoo ŋànk réew mi ñoom ñooy taxaw jóg wax daal lee jot na arrêté leen mbir mépp daal di jeex kon même foog naa ne bu dee saafara ak faj am na sax fan na goo xam ne wala geneen wet goo xam ne fa la ñu gë fa la ñu war a gën a xoolee li aju ci nag wàllu février bi dëgg la xañ na homme politique yi février wur leen tax a jóg mais li ma wax léegi homme politique aussi bu matul li mu doon. wala ak pal jaral ko lu ne wala gëm réewam sëñ bas kooku lay léeg dana féewale ngir toog walla mu féewale ngir wéy di toog kooku aussi réalité la euh, te am na ñoo xam ne bëgguñu groupe yu organisé wu yu am doole yu mën a constituer contre pouvoir ba mën taxaw taxawaay bi ñu taxaw ba askan bi ak réew mi kenn du leen mën a noot

yëg-yëg boo xam ne nit ki dina ko am ba xam taxawaay bi nga xamante ne bii war na ko mën a taxawee ba ak defar gi nga xam ne ñu ñëpp moom lañu bëgg mu nekk beneen problème bi mooy jàpp naa ne aussi manque de leadership am na ci euh, euh, jibi euh, professeur maa ngi maa ngi lay nuyu wax nga fi léegi problème mu code de la famille bi fi mu nii tey ñu bari xamuy sax ne loolu nekk na tey ji ba élection législative amee nit ñi sax bi nga xam ne ak élection présidentielle mu dellu siwaat ci problème mu citoyenneté bi nga xamante ne bii moom laa wax ak li nga xam ne mooy ñàkk ñàkk xam gi donc c'est une question de responsabilité une question de de conscience et un problème de leadership bi nga xam ne ñi war a taxaw danañ mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne taxawaay bu bu dëgër lay nekk ba ñu mën a ànd tabax suñu réew ci ni ñu ko bëggee kon sa yàbbu ñu ngi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañ ko dagg foofu ndax mi la am nay gan ñu ñëw te jataay bi foog naa julli ji takkusaan jot na wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu genn